ru yu xonq yooyu bu demee ba effacé wu géey jot na fan la yem waxtu muxtaar bi ay vers onze heures dix heures et demi onze heures mooy ila sulusi laylil awal diggante dix heures et demi onze heures muxtaar ba jeex na wa daruuri yu xuma wante waxtu wi nga xam ne itam mën nga ko cay julli ndax daruuri ya la ila tulu el fajiri mën ngay dem ba bi fajar siy fenk loolu yépp ci géeyal waaye nag du muxtaar ba de daruuri ya ba la wal muxtaaru li subhi waxtu wi nga xam ne itam moom la ñu tànnal suba nga xam ne waxtu muxtaar la minal fajri moom itam mu ngi commencé bu fajar ji passé ilal isfiraar ba fi jant bi waaj a jógee bu jant bi waaj a jóg loolu yëpp ci suba gi la ilal isfiraaril ala ba fi jant bi nga xam ne mu ngi waaj a génn léegi balaa muy féttee ko balaa muy jóg bay taxaw diggante boobu yëpp waxtu muxtaar la pour suba wa daruriyuhu waxtu wi nga xam ne nag moom itam waxtu muxtaar wa passé na waaye ba léegi boo fa jullee suba baax na ila tuluu shamsi mooy ba ba jant bi fenk diggante boobu yëpp muxtaar la waaye bu jant bi xasee fenk léegi léegi waxtu suba gi passé na da nga koy fay muxtaar bi passé na daruriya bi passé na xanaa da nga koy fay wal qadaau fil jamii pour nga fay nag tusubaar tàkkusaan timis gée pour nga fay ko wa ma wara a dalika mooy li nga xam ne mu ngi ci gannaaw yooyu yëpp bu fekkee muxtaar bi passé na darooriya bi passé léegi suba gi passé na kon léegi leneen loo fa jullee rek fay nga koy tuddee alqadaa lañ koy tuddee mooy fay waaye jullee too waxtu bi nag julli woo ko ci muxtaar bi julli woo ko encore ci darooriya bi mais léegi daal da nga koy fay wa man axara salaata koo xam ne kii dafa yéexee julli xataa xaraja waxtuha ba waxtu wa passé nekkoo ci dara nekk ci waxtaan nekk ci àdduna ba waxtu wa passé wala nga nekk ci njaay nekk ci say bénéfice àdduna nekk ca ba waxtu wa passé fa alayhi dambun azim nee na kooku am na bakkaar bu rëy rëy rëy ndax nekkoo ci farata da ngaa nekk ci say mbiri bopp yaa ngi jaay yaa ngi lijjanti yaa ngi caaxaan bàyyi ba waxtu yu passé nee na fa alayhi dambun azim kooku de am na bakkaar bu rëy illa an yakuna nasiyan wala lu dul ne nag daf ko fàtte woon ndax itam fàtte fàtte fàtte waxtu soo ba yàlla jégal na la aw naiman wala nga doon nelaw fekkee da nga doon nelaw ba bàyyi waxtu wi nelaw ya nga doon nelaw ngànt la moo tax yàlla jéggal na la wala tusalla nee na du ñu julli naafilatun naafila baada salaati subhi gannaaw bu ñu jullee suba ba pare gannaaw bu ñu jullee suba nee na foofu kenn dootu fi naafila ila irtifaai shamsi jëm ci bu jant bi yëkkatiku foofa kenn du fa julli naafila da ngay bàyyi ba jant bi jóg ba taxaw sooy naafila nga doon di naafila lu demee ni ki julli gi yoor yoor ak yi demee noonu wa baada salaatil asri ak gannaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba pare julli nañu tàkkusaan timis jotagul foofa amul naafila kenn du fa naafila ila salaatil maghrib diggante boobu ba ba ñuy julli ji timis nee na foofa kenn du fa julli naafila wa baada tuluil fajri ak gannaaw boo xamee ni bii fajar si fenk na ilal wirda xanaa benn wirda boo fa am ilal wirda nee na lu dul wirda am say dog yoo fa def jàng fa alquran jàng fa téeméeri astaghfirullah tudd fa yàlla wér dafa ak wér da bu mu munti doon astaghfirullah ak laa ilaha illallahu la may nañ la ko fa li naa imin anhu ka nga xam ne daf doon nelaw ba fajar si génn waaw da nga doon nelaw ba fajar si génn kooka nee na waratuy julli da ngay toog di wér da boo toogee ba jant bi taxaw nag bu la neexee nga dal di julli la nga doon julli nee na wa inda julusi imaamil jumaa bu fekkee da nga ñëw fekk imaam imaamu ajjuma bi mu ngi toog ci kaw minbar bi waaw nee na wa inda julusi imaamil jumuati alal alal minbar ñëw nga di julli su juma ñëw nga fekk imaam baa ngi toog ci kaw minbar bi nee na foofu waratoo fay julli waaye nag ci ngiru imaam Malik la waaye am na ngir yoo xam ne mën ngay ñëw sax fekk imaam bi ci boppam mu ngi xutba nga julli ñaari rakaa dal di toog kon ñu gis ne ixtilaaful ulama ci mbirum fiqhul islaam yi imaam Malik lii la wax imam xanbal lii la wax imam shafii lii la wax tekkiwul ne boo ci def bàyyi ba ci des yàqu na yàquwul waaye lépp ak góorgóorlu la benn boo ci def rek baax na yu dañ ne waaye wax nañu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na fekk benn waay benn waay fekk yonent bi mu ngi xutba yonent bi dal di ñëw toog waa ji dal di dagg xutba gi yonent bi dagg xutba gi dal di wax waaye na ko jógal nga julli ñaari rakaa waa ji dal di jóg julli ñaari rakaa dal di continuer di déglu xutba gi kon loolu itam bunt la boo xam ne soo ñëwee fekk imam bi mu ngi toog ci minbar bi te yow julleeguloo man ngay julli sa ñaari rakaa dal di toog déglu xutba gi boo ñëwee itam fekk imam bi ci boppam mu ngi xutba bu la neexee julli ñaari rakaa toog continuer xutba gi di ko déglu bu la neexee it toog bañ a julli loo ci def rek yàqut julli mais loo ci def rek baax na waaye nag boo julli woon nag moo gën ndax it nag dolli ngëneel la dafa am loo xam ne soo ko defee ngëneel li day gën a baax waaye soo ko bàyyi itam yàqut sa julli wa baadal jumaati ak gannaaw bu ñu jullee àjjuma ba pare foofu itam waroy naafila xata yaxruja min al masjidi fii génnuloo jàkka ji ngay dem ba sa kër bu la neexee nag nga def say naafila waaye julli nañ àjjuma tasaaroo nañ boobaa daal vraiment na nga génn nga dem boo demee ba sa kër nag bu la neexee nga julli ji ndax yàlla moo wax ci alquran ne ida qudiyati salaatu fantashiru fil ard bu julli gi jeexee tasaaroo leen ci kaw suuf dem leen dem leen yow bu fekkee amuloo soxla soo doxi itam bul julli ci jàkka ji jogal nga dem ba sa kër nga julli ji ngir lan appliquer kaddu yàlla ndax yàlla moo ne bu julli gi jeexee tasaaroo leen kon yow bu julli gi jeexee julli ajuma gi jeex na amatuloo droit toogaat foofu di jéem a julliwaat soo demee ba sa kër nag bu la neexee nga naafi la ba keroog tàkkusan bi jot loolu moom dara nekkut ci moo tax mu ni wa baadal jumuati xata yaxruja min al masjidi gannaaw bu ajuma ji jeexee amatuloo droit di naafi la waat fii génnuloo jàkke ji faslun lii dee benn bunt la fii shuruti salaati ci sartay julli charte yi nga xam ne mooy tax julli wér nee na wa shurutu salaati charte yi nga xam ne mooy tax julli wér taxaaratul xadas mooy laabug toj-toj wa taxaaratul xabas ak laabug tilim-tilim suñu nee laabug toj-toj mooy laab goo xam ne du sobe suñu nee taxaaratul xabas mooy laab goo xam ne laabug sobe la ak nu mënta demee rek minal badani ci yaram nag lay bàyyee ko wa saw bi ak yére wal makkaani ak palaas bi ngay jullee wa satrul awrati ak suturaal sa awra suturaal sa awra bokk na ci charte yi sol lu jot bu dee góor sol charte di julli baaxul sol charte di julli baaxul même bu fekkee yow kese yaa nekk sa néeg itam baaxul da ngay suturaal sa awra bu dee jigéen nga muur sa yére yaram sol lu jot di julli ci charte yi la bokk wa istiqbaalul qiblati ak jublu qibla nga jublu penku di julli wa tarkul kalaam ak bàyyi wax mbooleem wax joo xam ne bokkul ci julli gi nga bàyyi ko wa tarkul afaalil kasiira ak bàyyi jëf yu bare bare bare bare bare am na ñoo xam ne dañuy toog di julli bu nit ne asalaamu aleykum nga geestoo ba xam kan la googu julli baaxul am na koo xam ne kii dafay julli bu nit di wax ngay dóor say luppoo am na ñoo xam ne dañuy julli bu nit nuyoo nga ne unhun unhun loolu yépp bokkul ci respecte julli moo tax mu ni sartay julli daf ci bokk wa tarkul kalaam wa tarkul afaalil kasira bul waxati dara jëf yu bari yëpp na nga ko bàyyi te xam ni ci kanam yàlla nga taxaw ku taxaw ci sa kanam borom audience sa digganteeg sa borom kooku waroon loo yittewoo dara ci àdduna du dul jàkkaarloog sa yàlla rek ndax julli jamono bi nga taxawee di ko def wax nañ ne yaa ngi branché sa digganteeg yàlla en direct dara jaaratul sa digganteeg yàlla kon war ngay am teggiin wa awratu rajuli awray góor maa bay na surrati li ko commencé ci jumbox bi ila rukbati ba ci ay óom loolu yépp awra la ci góor moo tax yenn short yi ñu koy sol di dox ci mbedd yi yaakaar ne ñoo fa nekk ñooñu waruñuy xas xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo sol ñoom itam ay sipp yu gàtt ndax ñoo yem rek nee na wal maratu jigéen nag moom kulluhaa léppam na awratun awra la maa addal wajha ba mu des kar kanam gi wal kafay ne ak ñaari tënk yi jigéen moom léppam awra la ba mu des ñaari loxo yi maanaam ba mu des kar kanam gi ak li nga xam ne moo nekk ñaari tikku njare yi wa tukrahu dinañu sib asalaatu julli fi sarawili ci ay sort illa ita kana fawqaha shay'un lu dul ne dangaa jël leneen teg ko ci kawam wala nga sol benn pantalon bu seere taxaw di julli il faut nga jël leneen teg ko ci kawam araamaluñ ko nag waaye dañ koo sib ñu bàyyi xel ci loolu wa tukrahu la wax wa tukrahu dinañu sib asalaatu julli fi sarawili ci ay pantalon illa ida kana fawqaha shay'un lu dul ne kaw pantalon ba dafa am loo ca teg wa man tanajjasa thawbuhu képp koo xam ne nag yére bi nga sol dafa am sobe walam yajid thawban ghayrahu te amuloo beneen yére bu bokkul ak moom walam yajid maa an te amul ndox itam moo xam ne yaxsiluhu bihi mën na ko cay raxase awalam yakun indahu maa yalbasu te amul leneen loo xam ne lii moom lay sol xataa yaxsilahu ba man koy raxas wax xaafate mu ragal itam xurujal waxti ne bu ma fi toogee di ko fóot waxtu wi dina passé islam nee na sallaa waa jooju mën nay julli bi najaasatihi ak sobeem sa gis nga lii tax nga mën a julleeg sobe kon defe naa ne sàgganee waxtu doy na waar wa man tanajjasa sawbuhu koo xam ne kii sa yére dafa am sobe walam yajid sawban xayrahu te amuloo beneen yëri bu bokkul ak yëri bi nga sol amuloo beneen yëri bu bokkul ak yëri bi am sobe bi walam yajid maa an te amul ndox itam moo xam ne yaxsiluhu bihi mën na ko ciy raxase amuloo ndox moo ko fóotee aw lam yakun indahu ma yalbasu te te te itam amut leneen loo xam ne lii moom lay sol xataa yaxsilahu ba mën koy raxas wa xaafa te mu raxas itam maanaam te mu ragal itam xurujal waxti ne bu fi toogee di ko fóot waxtu wi dina passé nee na salla bi najaasatihi kooku mën a julleeg sobeem kon gis nga ni julli moom pour nga bàyyi ko fi ngay jaar par mën a bàyyi julli amul weeru koor soo feebaree man ngay ñàkk woo or asaka su fekkee amuloo nisaab man ngay ñàkk génne asaka aj màkka su fekkee amuloo paas wéeruloo man ngay ñàkk dem màkka mais julli moom amul ngànt julli amul ngànt moo tax ne ne wala yaxillu du dagan taaxiru salaati yéexee julli li adami tahaara ngir ñàkk laab dama am sobe ah waxtu bi jot na amuloo benn yëre boo xam ne bii moom nga war a mën a sol summi sa yëre bi am sobe te boo fi toogee di uti leneen waxtu bi dina paase nee na jullil ak sa sobe moo tax mu ni wala yaxillu du dagan taaxiru salaati yéexee julli li adami tahaarati ngir ñàkk laab wa man faala dalika képp ku def loolu faqad asa rabbahu mooy na boromam wa man lam yajid koo xam ne kii amul maa yastaru bihi awratahu loo xam ne mën na cay sutural awraam salla mën nay julli oryaanan ak yaramu neen bu fekkee amuloo benn yëre boo xam ne moom ngay moom ngay sus moom ngay suturaale sa awra amuloo tubay joo sol amuloo mbub moo sol bu fekkee waxtu wi jot na nee na defal yaramu neen nga julli defal yaramu neen nga julli wa man axta al qiblata koo xam ne kii da nga gëlëm ba jaawale qibla ndax fii qibla la wala fii du qibla aada fil waxti da ngay bamtuwaat waxtu wa ci saasi bu fekkee wóor na la ne xam nga qibla wa kullu iaadatin mbooleem julli gooy bamtuwaat fil waxti ci waxtu wa fa hiya moom fadilatun ngëneel la ndax itam dem naa ba julli ñeenti rakaa maanaam ah man kat damaa jaawale qibla fii nu fii muy qibla gi nee na naa ko bamtuwaat ndax bamtuwaat bi ma koy bamtuwaat ngëneel la ndax julli woon naa julli googu dina baax bu moo ko bamtuwaatee jubloo xibla moom itam day baaxaat kon am naa ñaari bénéfice moo tax mu ne wa kullu ma tuaadu fa hiya fadila ay wa kullu iaadatin fi lwaxti fa hiya fadila mbooleem bamtu gooy bamtuwaat waxtu di ko julliwaat ngëneel la wa kullu ma tuaadu minhu salaatu fi lwaxti lépp loo xam ne nag dañ cay bamtuwaat julli gi ca waxtu wa fala tuaadu minhu lfaa'ita kooku duñu ko kooku duñu ko bamtuwaat julli goo xam ne gi daf la faatoon wa naafilatu wala jullik naafila masalan julli yi ngay julli farata te xamuloo woon xibla bi nga dem ba ne asalaamaaleykum mu wóor la ne fii nga jublu woon du xibla bi nga xàmmee xibla bi nee na loola mën nga koy bamtuwaat waaye su fekkee da nga doon fay waxtu wu passé jaawalee xibla wala nga doon naafila jaawalee xibla nee na comme que da nga doon fay wala ngay naafila jaawale xibla bu la leeree ne xibla bi fii la nee na bu la neexee jaratul nga di ko dellu bamtuwaat kooku bu la neexee bàyyi ko ndax da nga doon fay wala naafila la woon kon faslun lii ab buntu la faraidu salaati nee na faratay julli ndax jullit moom itam am nay farata faratay julli nee na niyatu salaati mooy nga yéene julli al muayyanati julli ga ñu ràññee bu dee tusubaar nga fas yéene julli tusubaar bu dee tàkkusaan nga fas yéene julli tàkkusaan mooy daal niyatu salaati al muayyana julli gi nga xam ne moom nga fas yéene julli nga yéene ko wa takbiratul ihram ak takbiratul ihram mooy allahu akbar gu njëkk gi allahu akbar gu njëkk gi ngay wax wal qiyaamu laha ak jóg taxaw wal fatihatu ak jàng bi ngay jàng fatiha farata la wal qiyaamu laha ak taxaw bi ngay taxaw di jàng fatiha farata la wal rukuucu ak rukuucu rukuucu ba sa digg gannaaw gi tàlli farata la war rafu minhu ak sigi ba taxaw temm loolu itam farata la am na ñoo xam ne ci julli yi da ngay julli boo rukooxee doo siggi ba sa digg gannaaw gi taxaw da ngay yëkkati sa bopp bi tuuti rek continuer dem julli ji loola boo ko defee bàyyi nga farata te farata boo ko bàyyee julli gi yàqu na moo tax il faut ñu siy def attention nee na war rukooxoo rukooxoo ba sa digg gannaaw gi tàlli farata la war rafu minhu siggi bàyyeekoo ci rukoox gi ba taxaw temm kooku itam farata la wa sujuudu ak sujuud te bu ñu nee sujuud mooy ngi jël sujud sëpp ko ci suuf loolu itam farata la moo tax mu ne wa sujudu alal jabha nga sujud ci sa jë farata la wa rafu minhu ak sigi ba toog bàyyeekoo ci sujud gi kooku itam farata la am na ñoo xam ne dañuy mel ni ganaar guy cob da ngay sëgg rek siggiwaat loola baaxul ndax toog bi ngay toog ci diggante ñaari sujjóot yi farata la te farata nag soo ko bàyyee julli gi yàqu na wal itidaalu ak yemoo bi ngay yemoo siggi ba toog tem kooku itam nee na farata la wa tumaninatu ak dal dal gi ngay dal wa tartiibu bayna faraidiha ak tar toftale gi ngay toftale diggante farata yi diggante farata julli bu nekk soo paree ci bii dem ci bii paree ci bii dem ci bii loolu itam farata la wasalaamu ak asalaamualeykum gi ngay wax wa julusuhu ak toog bi ngay wax pour wax asalaamualeykum alladi yuqaarinuhu da ngay toog wax asalaamualeykum kon toog bi ngay toog ak lënkale bi ngay lënkale toogaay beeg asalaamualeykum farata la wa chartu niya faratay yéene muqaaranatuha li takbiratil ihram mooy yéene bi da nga koy lënkale ak allahu akbar bi kon da ngay xaar ba yëkkati sa loxo doog a fas yéene waaye doo fas yéene yëkkati sa loxo wala nga yëkkati sa loxo ba pare doog a fas yéene wa chartu niyati daal muqaaranatuha li takbiratil ihram kon charte yéene mooy da ngay lënkale yéene bi ak takbiratul ihram bi ngay wax te buñ ne takbiratul ihram mooy allahu akbar gu njëkk gi ngay wax ci julli gi wa sunnanuha sunnay julli nag al iqaamatu mooy liqaam allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah sunna la wa suuratu lati baada al fatiha ak saar bi ngay teg ci gannaaw fatiha gannaaw boo récité fatiha saar bi nga ciy teg sunna la wal qiyaamu laha ak taxaw bi ngay taxaw pour jàng saar bi ngay teg ci gannaaw fatiha sunna la wa sirru fii ma yusarru fiihi bu fekkee julli gi yelu la buñ ne yelu mooy wax ndànk ah bu fekkee julli guñ war a yelu la nga wax ndànk loola sunna la wal jahru fii ma yujharu fiihi bu fekkee julli gu ñu war a wax ca kaw la wax gi ngay wax ci kaw itam sunna la wa samia allahu liman xamida samia allahu liman xamidahu gu ngay wax samia dégg na allahu yàlla liman ki nga xam ne xamidahu mu ngi koy sant sant yàlla dégg na ki koy sant loola mooy samia allahu liman xamidahu yàlla dégg na ki koy sant wax ji nga koy wax farata la wa kullu takbiratin sunnatun ila al ula mbooleem allahu akbar goo wax sunna la ba mu des nag allahu akbar gu njëkk ga nga xam ne moom ngay ubbee julli gi googa farata la wa tashahud daani ak ñaari taaya yi taaya bi ci digg bi ak taaya final bi kooku itam benn taaya bu nekk sunna la wal julusu lahuma ak toog bi ngay toog pour jàng taaya attaxiyaatu lillahi azzikiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله loolu mooy tashahud mooy taaya kon toog bi ngay toog di jàng taaya nee na loolu ci boppam sunna la wa taqdimu alfatihati ala suura njëkk bi ngay njëkk jàng fatiha di ci teg suura loolu itam sunna la wa taslimatu ak assalaamu aleykum gi ngay te wa taslimatu saniya mooy assalaamu aleykum gi ngay wax googu deuxième assalaamu aleykum xam nga asalaamaaleykum gu njëkk gi moom farata la gi ngay wax ci sa côté ndeyjoor jàkkaarloo ak penku bi waxaat asalaamaaleykum tourné ci sa côté gauche wax asalaamaaleykum kon asalaamaaleykum gu ñaareel gi nga xam ne da ngay jàkkaarloo ak penku bi wax asalaamaaleykum ak asalaamaaleykum gu ñetteel gi nga xam ne da ngay tourné sa gauche wax asalaamaaleykum benn bu ci nekk ne ne sunna la lil ma'muum yi pour ki nga xam ne moom la ñu jiite lil ma'muum mooy ki nga xam ne dañ koy jiite wal jahru bi taslima yëkkati gi ngay yëkkati sa baat di wax assalaamu aleykum ba ñëpp di ko dégg loolu itam sunna la moo tax mu ni wal jahru bi taslimati al waajibati nee na yëkkati gi ngay yëkkati di wax assalaamu aleykum gu war gi wa salaatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak salaatu ala nabi gi nga ciy teg bu itam sunna la ndax itam bu fekkee da nga julli nga taaya taaya ñaareel bi amul salaatu ala nabi waaye sa dernier taaya boo demee ba ba mu jeex sunna la nga julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax itam julli gi jeex na kooku itam sunna la wa sujudu alal anfi ak sujud bi ngay sujud di teg sa bakkan ci suuf xam nga sujud moom liy farata ji mooy samp sa jël waaye boole ci bakkan bi nag moom sunna la wal kafay ne ak sa ñaari loxo sa ñaari loxo yi ngay teg nii ci suuf sunna la wa rukbatay nii ak sa ñaari tànk sa ñaari óom ñaari óom yi wa atrafil qadamayni ak say cati baaraam wa sutratu li xeyril ma'mum sutra li xeyril ma'mum mooy ki nga xam ne dafay julli te kenn jiituwu ko mu jël lu toll ni benn banc teg ko ci kanamam pour baare ñooñu nga xam ne ñooy jaar ci kanamam loolu sunna la moo tax mu ne wa sutratu li xeyril ma'mum wa aqalluha li gën a tuuti ci loolu ngay teg ci sa kanam pour bañ ko ru pour maanaam pour bañ ko romb nee na xilaasu rumxin lu toll ni benn xeej la lu toll ni benn xeej am na ñoo xam ne seen sutura dàll la ñuy jël jël jël dàll teg ko baaxul jël dàll rek teg wala nga jël benn bant teg du noonu sutura bi ngay def sunna la mais da ngay jël lu xaw a yëkkati ko tuuti nag teg ko ci sa kaw loo xam dafay am taxawaay mu ne lu tolloog benn xeej benn xeej wa tuulu ziraain taahirin saabitin xayru mushawisin wa tuulu siraain wala lu tolloog guddaayu loxo taahirin loo xam ne dafay laab nag saabitin loo xam ne dafay sampu xayri mushawashin nekkut loo xam ne dañu koo couleur ba soo ko xoolee bu nekkee ci sa bu nekkee ci sa kanam ngay xool ay dessin ba tax ngay fàtte julli gi nee na loolu bul ko def kon soo fekkee da ngay jël sutura te mooy loolu ngay teg ci sa kanam pour bañ ko romb na nekk benn bant rek boo xam ne benn couleur lay doon loo xam ne dafay laab set nga teg ko ci sa kanam mais su fekkee dafa bëri ay dessin war mu wala mu bëri ay couleur mën ngay taxaw di xool ci couleur yi wala ngay xool ci dessin yi seytaan yi dafa gaaw nga dem ba fàtte julli gi ngay julli lu mel noonu moom lañ ciy bañ wa fadailuha ngënee lu julli nag rafaul yadayni mooy yëkkati gi ngay yëkkati sa ñaari loxo indal ihram jamono bi ngay wax allahu akbar allahu akbar gi yëkkati gi ngay yëkkati sa loxo ba mu tolloo sa ñaari nopp nga nil la waaye bu fekkee yëkkatiwuloo sa loxo wi ndax wax allahu akbar rek kooku du yàq julli gi moo tax mu ni wa fadailuha ngëneel yi raful yadayni mooy yëkkati ñaari loxo indal ihram jamono bi ngay wax allahu akbar bu njëkk gi xata tuqaabila usnayni ba mu tolloog say ñaari nopp loolu ngëneel la wa qawlul ma'muum wal fasti ak ki ñu julli maanaam ki ñu jiite wax gi muy wax wala kii julli moom kese wax gi muy wax rabbana walaka alhamdu bu fekkee imam bi daf ne sami allahu liman hamida yow mi nekk ci gannaaw nga ne rabbana walaka alhamdu nga nel la bu fekkee da ngay julli yow kenn nga wax sami allahu liman hamidahu yow kenn nga tegaat ci rabbana walaka alhamdu yow kenn loolu itam nga nel la rabbana yow sunu borom walaka alhamdu yaa moom cant rabbana walaka alhamdu yow sunu borom yaa moom cant am na ñuy wax noonu allahuma rabbana walaka alhamd déedéet rabbana walaka alhamd rek rabbana walaka alhamd yow sunu borom yaa moom cant wa taaminu baad alfatiha ak amin gannaaw bu ñu jàngee fatiha ba pare amin gi ñuy wax gannaaw bu ñu jàngee fatiha ba pare ndax yonent yi moo wax ci benn hadis ne su imam bi waxee wala daalin yonent bi nee na na ngeen wax amin ndax bu fekki imam bi daf ne wala daalin malaayika yi dañuy wax amin te ku sa amin ñëw considéré ak aminu malaayika yi yàlla dina yàlla dina la jéggal say bakkaar ñu bàyyi loolu xel yonent bi moo ne bu imam bi jàng fatiha ba ci wala daalin yéen ñëpp na ngeen wax amin ndax bu imam jàngee fatiha ba ci wala daalin yonent bi nee na malaayika yi dañuy wax amin te ku sa amin ñëw considé ak aminu malaayika yi yàlla jéggal na say bakkaar yu njëkk yi jéggal na la sa bakkaar yu mujj yi loolu xadis yonent bi la kon gëneel la moo tax mu ne wa taaminu baad al fatiha lil fasi wal maamum yow même yow kenn bu fekkee yaay jàng ba nga wax wala daalina yow kenn yaay julli nga ne wala daalin wëlbatukul waxaat amin su fekkee dañ lay jiite bu imam bi waxee wala daalina ci gannaaw waxal amin kon loolu ngëneel la nee na wala yaquluha al imaamu illa fi qiraati sirri amin nag nee na imaam du ko wax lu dul bu fekkee dafay jàng fatiha ndànk rek moom kenn waaye nag loolu ci ngiru imaam Maalik la waaye am na ngir yoo xam ne imaam bi mën nay jàng fatiha ci kaw ànd ak mbooloo mi waxaat amin ca kaw ñu ngi koy gis waaye fii daf ne wala yaquluha waaye nag du wax amin al imaamu imaam warul wax amin illa fi qiraati sirri lu dul ba muy jàng fatiha ndànk rek la ko doon jàng wa tasbixu fi rukuuci ak subhaana rabbiyal subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi tasbix yi ngay def ci jamono bi nga rukuuci nee na nee na loolu la encore ci ngëneel yi la bokk wa tasbixu ak subhaana subhaana subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi gi ngay wax boo rukuuci nee na ngëneel la wa duaau fi sujudi ak boo sujotee nga sëpp sujje wëlbatiku ñaan wax subhaana rabbiyal ala wa bihamdihi ñaan ga nga fay ñaan itam ngëneel la wa tatwilul qiraa fi subhi bu fekkee da ngay julli suba nga jàng saar yu gudd bu fekkee mën nga saar ya wa zuhru talliha bu fekkee julli tusubaar la encore nga jàng saar yu gudd su fekkee mën nga ko gis nga li tax jàng alquran mokkal ci saar yu bari baax loolu la ndax dafa xam fekkee yaa ngi jàng yaa ngi julli dafa am rakka dafa am julli yoo xam ne dañuy bëgg ci yow nga jàng ci saar yoo xam ne saar yu gudd la yow léegi bu fekkee mokkaluloo saar yu gudd ndax di julli ci ngay nga mokkaluloo saar yu gudd ndax di jàng saar yu gàtt yi ngëneel la ngëneel la mu ngi lay raw yaa ngi julli waaye ngëneel li nag raw na la kon dafa bokkoon ci li nga xam ne moo nekk ngëneelu julli suba nga jàng saar yu gudd wa zuhru taliha ak tusubaar gi nga xam ne moo topp ci suba gi itam nga jàng ci saar yu gudd wa taqsiruha fi l asri wal maghrib bu fekkee julli tàkkusaan la ak julli gée nga jàng nag maanaam di julli tàkkusaan ak julli timis nga jàng saar yu gàtt wa tawassutuha fil ishaa'i bu fekkee julli gée la nga dal di jàng saar yu diggu doomu gis nga ko noonu noonu lañ ko organisé bu dee suba ak tusubaar jàngal saar yu gudd bu dee tàkkusaan ak timis jàngal saar yu gàtt bu dee gée nga jàng saar yu diggu doomu kon defe naa ne mo mokkal ñetti saar ci alquran naan doy na am naa loo ma jullee amagoo loo jullee moo góoloo jullee ndax ni nga xam ne noonu lañ ko taamoo mokk golo yow yow mënuloo ci saar yooyu kon amoo golo loo jullee ñun dañuy gaaw a wax am naa lu ma jullee déedéet nee na wa takunu suura ula te saar bu njëkk bi ngay jàng xabla saaniyati li jiitu saar bu ñaareel bi moo gën a war a gudd wa takunu suuratul ula xabla saaniyati saar bi nga xam ne mooy saar bu njëkk bi ci ni ñu ko tegee ci alquran bi moo war a jiitu saar bu ñaareel bi da nga koy jàng ci toftale masalan bu fekkoon ne ci kaw la ngay jàng suratul ngay maanaam ngay julli da nga war a teg suratul fatiha moo jiitu wala bu fekkee nga jàng suratul baqara doo nga teg suratu ala imran wala nga jàng suratu ala imran teg suratu nisa'i waaye jàng suratu ala imran ci rakaa bu njaa njëkk bi deuxième rakaa nga jàng suratul baqara bëggeewuñ ko noonu da ngay da nga koy maanaam da nga koy wàcce da nga koy organiser muy wàcc moo tax mu ne wa at wala minha moo ko war a jiitu te moo ko war a gën a gudd wal hayatul maalumatu forme bi nga xam ne xam nañ ko nag fi rukoo ci rukoo rukoo dafa am forme bu ko yónent bi jàngale ndax xam nga julli yónent yu moo ne sallu kama raaytumuni usalli day leen julli comme ni ngeen ma gisee may julli kon nee nañ forme bi nga xam ne moom lañ xam ci rukoo wa sujuudi ak sujuud wal juluusi ak ak toog wal kunuutu ak kunuut sirran ndànk lay doon qabla rukoo li jiitu ngay rukoo ah wal hayatul maaluma fi rukoo te muy jëmm forme bi nga xam ne xam nañ ko ci rukkoo mooy nga rukkoo ba sa digg gannaaw gi tàlli bu dee sujjóot nga sujjóot samp sa juróom-ñaari cër yi nga xam ne moom lañ wax nga di ko samp wax fa taxaw fa wax fa subhaana rabbil a'la wa bihamdihi nga dal di toog xunóot nag ndànk lay doon am na ñu koy def balaa ngay rukkoo nga jàng sa xunóot balaa ngay rukkoo nga jàng sa xunóot wa baada suurati fi saaniyati subhi wala nga jàng xunóot gannaaw deuxième saaru alquran bi ngay jàng bu fekkee da nga julli suba nga jàng xunóot wa yajuusu dina dagan baada rukuuci gannaaw boo rukuuci ba léegi mën ngay jàng xunóot wa duaau baada tashahudi saani ak ñaan bi ngay ñaan gannaaw boo defee sa tashahudu saani te mooy ñaareelu tashahud bi te bu ne tashahud mooy taxiyaatu lillahi wa yakunu dina nekk a tashahudu saani ñaareelu taaye bi at wala min al awal moo gën a gudd maanaam taaye bu njëkk bi wa tayaamunu bi salaam ak gestu maanaam tayaamunu bi salaam mooy jamono bi ngay wax asalaamualeykum nga xool sa côté ndeyjoor wa tahriku sababati fi tashahudi ak jamono bi ngay taaye yëngal bi ngay yëngal nii say baaraam wa yukrahu l iltifaatu fi salaati di julli di gesto dañu koo sib wa taxmidul aynayni ak di julli di gëmm say bët itam dañ koo sib wal basmalatu di wax bismillahi rahmaani rahim dañ koo sib wa taawusu fi farida di julli farata di wax ausu billahi min shaytaani rajim dañ koo sib wa yajuusu dina dagan nag fi nafli ci naafila wal wuquufu ak taxaw ala rijlin waxida ak jud di julli mel ni kuy taxaw taxawaayu militaire taxaw ci benn tànk loolu itam dañ koo sib dañ bëgg nga taxaw sa ñaari tànk yi illa an yatula qiyaamuhu lu dul nag taxawaay bi moo yàgg su taxawaay bi yàggee nga sonn bu la neexee may nañ la nga nga taxawee benn tànk wa ixtiraanu rijlayhi ak itam nga lënkale say ñaari tànk lënkale maanaam nga jël sa ñaari tànk dal di ko tofale bu dee góor dañ bëgg mu ràcc ñaari tànk yi bu dee jigéen nag dañ bëgg mu dajale ñaari tànk yi wa jaalu dirhamin aw xayrihi wala nga jël dërëm muy xaalis wala leneen lu bokkul ak xaalis fii fammihi def ko ci si biir gémmiñ loolu itam dañ koo sib baaxul wa kadalika naka noonu kulla ma yusawishuhu lépp loo xam ne da nga koy dugal ci sa poos muy jaxasoo di yëngatu sooy julli nee na loolu itam baaxul fii jay bi ci poosam aw kummihi wala ci wala wala nga def ko ci sa loxo loxo yi ci sa ci sa mbubbi loxo wala nga def ko ci sa cetu kaala ngay julli muy yëngatu loolu yëpp dañu ko sib nee na aw ala zahrihi wala loo xam ne da nga koy teg ci sa digg gannaaw di di julli muy yëngatu loolu itam dañ ko sib wa tasakkuru wala ngay toog di xalaat fi umuri dunia ci mbirum àdduna di julli di xalaat ci mbirum àdduna nee na loolu itam dañ koo sib wa kullu ma yushqiluhu an alxushuci fi salaati ak lépp loo xam ne dina jaar sa diggante toroxlu ci julli gi loolu itam dañ koo sib kon jamono bi ngay julli fexeel ba nga jël sa lépp nga jubbal ko ci yàlla mbirum àdduna nga génn ci bu fekkee julli gi cinq minutes la fexeel ba trois minutes yi yépp nga concentré wu ci yàlla deux minutes yi jublu ci àdduna xëy na loolu dafa nekk loo xam ne lii mënta ñàkk waaye na nga fexe ba jël cinq minutes yëpp yaa ngi taxaw di julli mais forme bi rek moo fi nekk mais concentration bi ci mbirum yàlla amu fi googu julli baaxul faslun lii benn bunt la mu ne li salaati nuurun azimun tushraqu bihi qulubul musallin wala yanaaluhu ila alxaashiun kon li nga xam ne moom lañ ciy def dañuy yem foofu ci bunt boobu insha allah te di fas yéene di ànd ak yéen pour jàng lii nga xam ne moo nekk al axdari te sunu yéene nekk ci jullit bu nekk war na ko mën a am di ci di ko di maanaam léegi di ko déglu ubbi sa axdar yi sax di ànd ak moom su ko defee dinañu dimbali ci li nga xam ne moo nekk sunu jaamu yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu